bul sëriñ Moussa Ka an anhu moo nu xamal sëñ baara lan la wax sëñ baara day woy doomi sëñ Tuubaa yi baax si ci sëñ baara mu ni nañ tagg Ahmadou Lamine moom la ñu may sirral masuun xar baax la feese ba ni guun bàyyi baa ko lëm ci xar nag baatin ba jaaxal na Kajoor motax ñu far ko lëm ci biir soko ko gisee mu ngay bangir di ro kuy lu mak ci xarnu bi faj aajo mo ci gëna gaaw lu mu wax boromam mu ni waaw day fal di folli ci lu gaaw mat na ragal ci xarnu bi day woy day woy te jangulon araf te man xam du ci suruf mo man arab te man wolof jommal na gaay xarnu bi rijaal yi xam nañu dara jam bu ne jalañ ñuy safi jam nërëm nërëm di safi mbam ramal ko war na xarnu bi waye seigne Moussa Ka ko wayat ci njuuj njaat ni bu len diingati jeegom njanaaw amul yoon te sañ-sañ ba ca baayam lu cay séen yoon sëriñ Bàmba ak ña mu ña mu nàmpal asal dañuy naaw ku déggoon li ma wax xam ni Baara Mbàkke day naaw kon sëñ Baara borom sañ-sañ la woon boo xam fu ko neex teg tànkam. sëriñ Baara li mu digal taalibe yi bokk na ci gën a fonk sëriñ Touba fonk sëriñ Touba ndax dafa wax ni na ngeen bu ne ko wutal nawle loolu bokk na ci mbindum sëñ Baara na ngeen kennal sëñ Touba ci ni ko yàlla def. tek ko fa ko yàlla tek ndax neena Serigne Bamba mi khadim rasoul mom dal moy jëm jo xamni bëgg suufu Touba jëlé kenn dootu jëlati ku melni Serigne Touba ci bir dundam. waye nak diggal na kep kuy talibem aussi ci fonk alxuraan waye diggal na tam kuy njabotam ci benno ndax da wax ci saadatul abra terim ba ni waj'al ayaliya ke misli namli fil kusri wal awsafi bi haqqi namli bol bok na ci diggalam ndax fexe ba da ngeen benno ba melni xorondom mbokk yi xam ngeen ne xorondom surtout nam li tudd na ko ci alxuraan ci la wax mbiru politiciens yi innal muluka isa daxaloo xaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kazalika yaf'alun kon nga gis ni nam li bàyyiwul dara mais boo seetloo sëriñ xaal xaal xaadim seen li yàlla sàkk lépp yii ma lay bëgg a wax rek ñoo ci dàq liggéey doomu aadama jinax xorondom ak ak li ñuy wax euh, jargoñ ñeent yi ñoo dàq liggéey ci àdduna bu demee ci science jargoñ li muy liggéey moo waral internet ñu génn ko ci toile d'araignée bi ndax day turne di créer est que euh, yàlla tudd na si tudd na leen saar xoolal li ma la wax. su tudd tam nam li xorondom yi saar. Mm-hmm. ndax wax nañu ni ki ëpp lu muy lekk ci ci li yàlla sàkk mooy jargoñ. Mm-hmm. jargoñ dina lekk 22 fois poids am On poids bi 22 fois le qui 24 heures. parce que day fournir effort di liggéey. waaye xorondom da ngay fekk nous pax yi ñuy jël lu di dajale ñoom di fa dugal yenn saa qui dem ci paxu xorondom fekk fa ponkalum sax. est-ce que nous xorondom mën na ko faa dugal. dañ ko le booloo mooy ko may. kon dañoo booloo nangoo liggéey. moo tax suñ sama le xorondom ci que tamit la muy fàggu ëllëg da koy denc ji lijjanti ko doomu aadama day liggéey pour denc fàggul ëllëgam moo tax yàlla li mu sàkk ñoo ciy def noonu sëñ ba baara nag jël exemple xorondom ni sama njaboot na mel ni xorondom ci wàcc al ayaal ya ka misli nam li fil fil fil kusri ci bariwaay gi ñëpp booloo nekk benn waaye tamit wal aw saafi ak seen melo bi xaqi nam li ci daraje suutu nam li nga xam ni moom dafa nuru sëñ Tuubaa xalima lool lool ba ni sëñ Tuubaa doon binde boo tiimee woyu sëñ baara day mel ni moom loolu la woy sëriñ Baara kon li mu digal njabootam mooy bennoo soppante bëggante jaamu yàlla ñaanal tamit Sénégal wax ni yàlla bu fi tremblement zalzala tremblement de terre bu fi am ñaan ko ca biir téeréem ba bu fi zalzala am nee na tamit bu fi mettit am bu fi lor am yooyu yëpp kon war naa tax bisum bi ku ne ñëw ci kuy doomu sénégalais rendre ko hommage te sëñ Xaadim ñun ñu ñuy jàppe référence moo tardé Sénégal ce ne sont pas des références je suis désolé mais ñu ñu jàppe référence duñu suñu référence suñu référence weesul fii Sénégal dañoo am de belles références waaye dafa mel dañoo xeeb suñu di jéem a jéggaani ay magi naar yu ñu xamul wala ñuy jéem a jéggaani ay tubaab yoo xam ne ay occidentaux lañu bàyyi suñu cëru bopp waaye exemple la ñu nii tey jii mën nañ ci def conférence d'ici dix mille ans du guerre ci œuvre bi mu réalisé te pourtant il n'a vécu que 45 ans sëñ Baara rek la dund ñeent fukki at ak juróom nga ba fi njaboot goo xam ni nee na ku ma jur wàllu yi la. xoolal sëñ euh, taawam sëñ Modou Baara li lay wan ne sëñ Baara bokku ci moo mag le taaw ci surtout sëñ Touba yi. am na ay mag waaye moo njëkk a ñëpp. te am na ay mag sëñ Modou Moustapha magam la sëñ Fallou magam la waaye dafa waxoon ni sama taaway mag ñëpp may ñekk am premier taaw bi. yàlla dogal mu am sëñ Mouhamadul Afis mooy sëñ Modou Baara mu ngi gane àdduna 1910 ci Sànnoosi moo mag sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mii mag sëñ Mbacke Medina mii magaale ay baayam ku mel ni sëñ Abdoulaat mii 14 sëñ Sooy bu mii 16 sëñ Abdou Samad mi borom bis bii di 17 dégg nga sëñ Saliou di 15 sëñ Moutala di sëñ Modou Boussa Dieng di Alaaji Baara di kon ñi ma mag bari na lool te moom taawam la kon la mu wax ni sama taaway mag ñëpp sëñ Baara wane na ko ci biir njabootam waaye nga xool kooku ni mu réy woon wilaay sëñ Modou Baara te pourtant fan wi guddul mu ngi gane àdduna 10 52 la génn àdduna kon mu ngi dund 42 ans niru loolu bàyyam nga xool ku ñu wax sëñ Abdoul Aziz Baara mi ko wuutu ni mu réy woon ak wilaaya 90 da fi jóge te ci mag ñi la 14 la feeñ te wàlluy la nga xool sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar waxuma la bi mu toogee di sëñ Touba ak sëñ Baara bi mu amee juróom-ñeenti at la nekk ci loxol Seex Sidil Muxtaar mu sëñ maam Cerno borom Daarul Muxti moom lañ ko tudde moo ko yar ba mu fa nekkee yàlla dogal dëkk ba ñàkk ndox ñu bëgg lu ñu am pour taw ngir tool yi mën a ñor sëriñ Seex Awa Balla lu mu wax dani ko kaay ma yónni la ci sa baay sëñ Baara ndax dafa jubóog yàlla lu mu bëgg yàlla def ko ndax sëñ Baara moo ne yàlla du repousser sama ñaas sama ñaan lu mu bëgg yàlla defal ma ko daal jël bataxal bind ko seigne mangi ne ko maa ngi sama dom waye galaj bi mako takal sama ñaan mo ci nek dama lay am luma lay laaj taw dafa jafe ci daaru mu bëggoon nga taw wax ko yalla mu taw fi bo boo yoni sa dom da ngay bañ mu réeral bataxal bi ñu bindal ko ko galaj Cheikh sidid Mokhtar am 9 ans ñu takal ko ko ko ci fas mu dik ci bayam seigne bara seigne bara ni ko ah na lan la déy mu ne ko sama moma yebal ci yow neena nga ci bi ma takal xol lim la ci laaj bim ko tekke gis mu ni ko dama soxla taw ci daru taw manki na tayay Serigne Touba serigne bara daal di reetaan ni ko jarul won ngay déplacer wu yow bu la lon jëndal la ay tangal rek yalla tawal ko da bobu 9 ans la am la Cheikh Sidine Mokhtar nga xam ne ko demal mu defal la lol bimu ñew mu jëndal ko ay tangal dafa taw taw ba tool yi yëpp daal di sibbi te bobu 9 ans la am mom jëm ji jëm ji digënte 80 ak légui at mu jot gàtt-gàtt 100 personnes dina jël ci wërsegam yóbbu leen màkkatal mu karam ñu seete yanantu bi ñëw ñaanal leen fi ci Dakar jëm ji di Cheikh Sidine Mokhtar mo boole islam ci lan انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون كون مو بولي نيب ناخ بيمو توغي داني بو تيجان خاص لا يين بو لا يين خاص موريت بغتوما كو ديغي فن نون نييب الاسلام كون جيم جي مو دوند لاك اسلام واني موي سيرن بارا جيم جي دي شيخ سيدي المختار مكه الكريم موي كي راسامبل نجابوتو سيرن توبا جيب تا بغول دارا سي ليمي يور ليب سيرن توبا لاكو جوخ ديغنت ماغال جي ماغال كان لا ci feewu décembre bi ak léegi 2 milliards a def ci compte sëñ Touba bi 2 milliards diggante boobu li moom moom donc personnellement 2 milliards kon moo bëgg sëñ Touba moo moonu wan sëñ Baara doomam yëpp kaawteef lañu xoolal sëñ Abou Madiana borom Touba yëmbal nga xam ni man bokk naa ci ñi mu ñaanal lu ne def na ko ci miracle ci addunaam sëñ Abou Madiana faj na aajo bu nekk Dakar gii sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ni buñ fi respecté ab taalibi murit man maa tax ndax sama noblesse waaye bu ñu fi ragalee taalibe murit aboo madiyaana moo tax kooku ci doomam yi la bokk xool sëñ ba siru màggetloo borom building fa la retraité mu ngi fii Géejawaay nur loolu sëñ Baara bari bàtti na lool fekke naa lu le mu def ko am na bis mu jiite ma timis timis gi jeex mu ne ma ndax xam nga xandax wallaahi lazim ma ne ko xam naa xandax yanant bi demoon na fa mu ne bi muy jiite xale xandax mu ne bi yanant bi di ñu jiite timis ci laa bokkoon jiite na ma julli dama lay julli pour sa faju barke sëñ Tuuba kon ñoom duñu ay nit xoolal sëñ Moustahin xoolal sëñ Basiru Xuja Jeng xoolal ko mel ni sëriñ Moodu ak baatin bu bari bi sëñ Abdou Kumba Suuna xoolal ñooñu sëñ Moustapha Finance sëriñ Cheikh Sidi euh, Ndar xoolal ni melon. domi doomi sëñ Touba joo jël da nga ni moom la kon sëñ Baara fi bàyyi nee na yi la miracle bu ko yàlla jagleel السلام عليكم بكي